xam nga lan laa bëgg te loolu may attirer attention d'ailleurs sax ci état bi. mu nekk lu ma métti nag. parce que mënumaa comprendre Ousmane Sonko ci procès yi nga xamante ne am na ko justice condamné ko mu toog këram ñaata nit lañ jugé. boo jógee tribunal ñu condamné la rëbës nga jëm wala nga dem ci beneen ci beneen ci beneen loolu lañ ma a gis loolu lañ mës a gis donc pour le cas Ousmane Sonko kon ci cas yi Ousmane Sonko man jàpp naa ne état bi da ko may faveur yu dul jeex dañ ko war a jàppale ci kaso bi c'est la vérité c'est la triste réalité loolu rek moo nekk li nga xamante ne moom moo war sinon ñu libéré ñi nga xamante ne ñoom ñoom ñoo am même délit ñi nga xamante ne ñoo am même délit puisque ñoom ak ñooñu ñëpp benn benn droit la ñu am. Ah, là responsable politique qui parle. mais l'état du Sénégal ak justice bi yi ñuy xaar yi ñu xam. non est-ce que est-ce que egg na ci yow wala nga xam ko pare teg ci sa tànk parce que Ousmane Sonko aussi quoi qu'on puisse dire ñu ne au-dessus de la suis d'accord mais aussi am na yu considération yoo xam ne dañ ciy bàyyi xel le président Sall il en avait parlé un jour est-ce que ci loolu lañ nekk en terme de droit et de loi. mais yow bu dëkk bi yëngu woon fu mu lay fekk Pape Gorgui. sama buntu kër souvent yéen yéen sama buntu kër Mamadou Awa responsable politique da ngeen naan l'état l'état mais bu ñu fi tàngee kenn du leen gis. Mamadou Awa sama buntu kër la may fekk dugal Pikine nga def micro trottoir sama buntu kër laay toog teg fa chaise toog mën lu leer laa wax. soo ko dañ ko war a jàpp. lu leer gis nga seen manifestation yu ñuy def ku ci laal sama kër ñu ñëw di ko laal. dinaa ko jëflanteeg ñoom ba pare waaye bu ma paree ci ñooñu ñi nga xamante ne tey ñoo nekk autour de Ousmane sunk ci boppam mhm. ci Ousmane sunk laa koy tàmbalee moom mi woote comment ça mënul attaquer sama famille nekk ci jàmm Ousmane Sonko est-ce que xam na la sax bay attaqué sa famille. ah mais ñoom seen wax. non je veux dire yéen tey jii nii lu xew rek ngeen ramené ko à Ousmane Sonko. ne. est-ce que nit wax ne prochaine prochainement bu ñuy bu ñuy bu ñuy mhm. na ngeen dem seen kër responsable bu ngeen fa demee di ngeen fa fekk alal ju baree bari est-ce que ko wax. non il n'a jamais dit ça Ousmane Sonko moo ko wax. xam nga Ousmane Sonko ko wax. Mhm. kon manifestation bu amee ñoo ñu dem ci kër leader politique yi pour responsable ñooñu dem ci kër leader politique yi mhm. kan mooy responsable bi ku dul Ousmane Sonko